jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd bokk ñun mbokk internet bu 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. mbokku internet yi ñu topp ci 5M TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaîne bile xibaar yi dañuy àddu rek ci wàllu politique maître Ngagne Demba ture la mu xamle mooy rek moom ginnaaw dogal bi nga xam ni njiitu réew mi Macky Sall jël na ko ni du bokk ci élection présidentielle yu 2024 yi loolee na xam ni itam wala ñamu ànd rek nañu xam ni kon mënuñoo rek daal di pousser fenn maanaam daal di pousse rek ñu gis leen ndax jamono ji lu mel ni moom njiitu réew mi Macky Sall la ñuy bañ kay mooy mu def rek comme lu Ouattara defoon foofee ca Côte d'Ivoire ak kile di Kaliba foofee ca Congo Poutine ca Russie ak Bazou ak Izou foofee ca Niger moom Ngagne Demba ture la muy xamle kay mooy fi mu nekk ni njiitu réew mi daal ginnaaw dogal bi nga xam ne jël na ko na ko jël itam ci wàllu yoon jëm ci mbiru Ousmane Sonko ndax loolee lañ koy fàttali wax ne itam parti Pastef bii du bokk ci benn dialogue boo xam ne daal dañuy teg rek euh, paaka ci put coalition Yewwi Askan Wi ñoom jug rek doon daje ak taskatu xibaar yi tey jilee la wax mooy njiitu réew mi Macky sàll ginnaaw bi mu waxee ni moomee du bokk nag na xam ni rek kon li nu mel moom maanaam rek deltuwul ginnaaw benn yoon waaye nag constitution bi moo ko ko mayul sax nag moom moo tax mu xam ni euh, kon mënul bokk taal te du bokk lañ koy wax kay mooy fi mu nekk nii. na def nag ay élection yoo xam ne ñëpp ci daal di bokk te ay élection yoo xam ne du am benn njuuj njàcc ñun loolu la ñu bëgg leneen dañuy sàkku itam bokk na ci mu bàyyi képp koo xam ni. def wàllu politique moo tax mu daal di lay tëj mu mel ni loole xalaatu Déthié Fall la jëm nag ci njiitu réew mi Macky Sall ginnaaw posture bi mu taxawee moom jëm nag ci leader yu opposition bile rawatina kile di Ousmane Sonko.